bokk yi sëriñ baa ngi nii nuyu dina wax asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. nee na sëriñ Cheikh ni ngi lay jotli ab nuyoo bu baax. ci turu sa mbokk di sab xarit. di sa lépp. sëriñ Cheikh Anta Mbakke. sëriñ bi nee na mi ngi nuyu mbooloo mu tedd mii nga xam ne moom nga àndal te nee na bi mu déggee ñu lim leen wan na ko itam ni nga jàppe bis bi nee na bi nga yégee bis bi day ñi nga am ñëpp indi nga leen indi nga sa njabootu bopp andi say jëwriñ indi say taalibe sëriñ bi nee na loolu rëy na ñoom lool nee na kon sëriñ Cheikh Anta Mbakke mi ngi lay nuyu bu baax nee na ma ngi lay jot li nuyu bokkam yi nga xam ne ñoom dafa bokkal teewit nee na te di la nuyoole ak ñoom mu di njabootuk daaru salaam gépp nee da koy tàmbalee nag ci kër sëriñ Modou Rokhaya gi nga xam ne moo xewle bis bi waaye ne nuyoo bi kat bunti këri Daaru Salaam gépp a ko bokk nee na sëriñ seex it nee na ma ngi lay jottali nuyoo sëriñ Abo mi nga xam ne mooy xalifab Cheikh Moudou Mamoun te lépp lu ñuy def ci dëkk bi wala ci njaboot gi ci turu sëriñ Abo lañ koy defe nee na kon sëriñ Abo mi ngi lay yóbbante ab nuyoo bu baax te di la siyaare bu baax nee na mi ngi jokk itam kóllëre gi nga xam ne lu yàgg la ci seen diggante sëriñ bi nee na mi ngi nuyu mbokk yépp mbooleem ku fi teew mbooleem ku fi teew ca suba ba nee na ca suba ba léegi ni ñu ko waxee mbooleem kilifay yoon mbooleem kilifay yoon wi buntu kër bu nekk nit jóge na fa ñëw teew si ci barab bii ànd kook sëriñ Fallou Galas hmm. nee na ci bis bu tedd bii nuy def hmm. sëriñ bi nee na kon mi ngi nuyu mboole mbokki taalibe bi yépp rek nee na wala ku dib soppe wala ngay wëllëre nee na yow nag Serigne Cheikh. sa digganteeg Serigne Cheikh Anta. ëpp na ëppoon na lu ñuy toog di ko wax. ëppoonte sax lu ñuy toog di ko wax. ndax loolu ñëpp xam nañ ko. nee na Serigne Cheikh sa mbokka sa xarita sa wëllëre la nee na ngeen bokkuk bëgg bokk ci waaru mag a wag muy waa mu ci toolu ci toolu sëriñ bi mi ngi bëgg sa dikk gi nee na sëriñ Cheikh mi ngi bëgg sa dikk bii mook ay bokkam mook ay bokkam nee na ma ngi sant it sëriñ Fallou Gala sëriñ Fallou Gala Syll mm. cant goo xam ne cant goo xam ne nee na moom la ko seereel nee na dana la ko seereel sëriñ Cheikh nga seereel ko bokk yépp ndax jëf mu jëf ndax nee na sëriñ Fallou Gala Syll la jëf jii mu jëf tey nee na daaru salaam gépp la ko defal. dafa dekkal jëfi mag ñi. nee na Serigne Fallou Galass dafa dekkalaat jëfi mag ña. ndax ku nee na kenn ku nekk xam nga diggante Cheikh Modou Mamoun ak Cheikh Modou Moustapha. noonu ñu ko nee na noonu ñu ko leerale rek muy loo xam ne ci Serigne Touba la tàmbalee. muy booleeg sëriñ tuubaa sàmm ko nee na ñu bokk dundal ko sàmm ko ba loola moo jur nee na ba loola moo gën moo jur ba loola moo jur seex Mouhamadul Mamoun jël ab taawam muy sëñ Modou Roqee mu jébbal ko seex Moustapha. seex Moustapha def ko ne doomi nee na seex Moustapha jël seex Modou def ko ne doomi boppam. boole ko itam ak njabootu boppam. jaarale leen fam leen war a jaarale. ba ñu mel nañu war a mel ba fu ci waay dem doon fa ab làmp buy leeral yoon wi alhamdulilah nee na mu mel ni ñun daaru salaam gépp ameel nañ cant ak ngërëm Seex Moustapha ndax sunu cër bii nu ko dénk defal nañu ci loo xam ne bi mu delsee ñëpp a nga koy jariñoo alhamdulilah nee na ko jërëjëf Cheikh Moustapha yàlla na nu yàlla fayal Cheikh Moustapha ci barkeb Serigne Touba. nee na kon ba tax na lii Serigne Fallou Galas def nee na ñun ñëpp sant nañ ko ci gërëm ko ci nee na Serigne Fallou lii nga neex na ñëpp nee na tubaarka loqol yëpp sedd nañ ci nee na bu cant googu jàllee. sëriñ Seex wax nañu santal ko ko bu baax. sëriñ Seex wax nañu santal ko ko bu baax. ci taxawaay bi nga xam ne am na ko ci diggam ak moom. bi nga xam ne am na ko ci diggam ak moom. di ko jàppale ci liggéey bi muy liggéeyal sëriñ bi. di ko jàppale ci liggéey bii muy liggéey sëriñ bi. féete na ko ci foo xam ne. nee na ko ci foo xam ni. yàlla ak sëriñ Touba rek la koy seereel. ndax sëriñ Fallou def na ci léppam. dencalu ko dara. nee na ànd naag Pastef ànd naag yéene te lam xam ne sëriñ bi bëgg na ko ci loolee rek la Sëriñ Fàllu ne nee na kon sëriñ seex nee na mi ngi sàkk ngeen ñaanalal ko ko bu baax sunu boroom gën koo taxaw bu baax a baax ba mu àggale yéeneem cant gi nee na cant gii mu doon wax léegi Serigne ali yu Mbacke mii. moom jëmm la joo xam ne. nee na jëmm la joo xam ne. ñuy damoo la. nee na Serigne Cheikh Aliou mii ku ñuy damoo la. ku ñuy bége la. nee na ku jaxasoo ak moom de. ak ku jaxasoo wut ak moom. te xam tànk yi muy dox. nee na da nga jàppal Serigne Cheikh Aliou mii bu baax. ndax nee na xam nañ ne sax ku yàlla dimbale la alhamdulilah. ndax bokk na fa mu war a bokk. xam na lam war a xam te xam nañ itam ne nit ku dëggu la nee itam ku mën a engagé la itam ci lim gëm nag nee na te yoon wi ñor na ko lool nee na loolu ñun ñëpp luñ xam ci yow la nee na te loolu yi ma wax maag sama bokk yi bari ñoo ko bokk Serigne Cheikh nee na kon ñu ngi lay sant bu baax a baax di la sant ci teewaay bii nga teew fii sa kër nga na di la xamale sa kër nga ñëw. mbàkke sa kër nga ñëw goo xam ni. bu la neexoon. yaay toog sax di dalale. nee na sa diggante ak Serigne Anta mate na ko. nee na diggante sañ Modou Roqee ak sëñ Ahmadou Tunda di na ko. diggante Serigne Modou Mamoun ak Cheikh Moustapha mate na ko. diggante maam Cheikh Anta ak tubaab may na la ko alhamdulilah nee na kon Mbàkke sa kër nga ne nee na kon ñu ngi lay dalal jàmm tey bég ci teewaay bi lool te di ko rafetlu lool Serigne bi ne tubaarkàlla ma ngi sant mboole mbokk yi nee na xam naa kàddu yi Serigne Cheikh waxoon moom gën naa matale lii waaye dañ ciy feeñal yéen ji rek tey sant mboolem koo xam ne nag. ba bis bi tàmbaleek léegi. jàpp nga ci jàpp nga ci. wala nga ànd ko Serigne Fallou Galasse la. moo xam yi. nee na moo xam muy kilifa yi. moo xam muy wëlëre yi. moo xam muy soppe yi. nee na ñëpp xam ne. lépp lu ci waaye def. nee na ñun nga ko defal. nee na Daaru Salaam gépp nga ko defal. nee na kon yàlla nanu Serigne Touba fay. amiin ci barkeb Serigne bi. nee na te sunu kilifa yu tedd yii nga xam ne ñoom lañ doon defal bis bi ñu delluwaat nag di leen ñaanal bu baax ah Serigne Touba dolli leen a teral fan nekk defal leen fa ak yëkkatiku akub dolliku nee na li nga xam ne jàng nañ ko fi ci alquran ak xasaayit ak i salaatul ala nee na yàlla na ko suñ borom nangu te ful ko te jottale leen ci tiyaaba ji nee na tam baawaan a baawaan nee na baag si nag ci ñun ñépp amin ba defaral nu nag sunu tey ak sunu ëllëg ci barkeb sëriñ bi nee na daal kàddu yi ñu fi dégg rafet na lool nee na te sëriñ Cheikh bii nga fi def matale na lool lamboo na njariñ yu bari nee na jamono jii ñu toll laaj na ko lool nee na loolu lu ñu war a yaatal la nee na yaakaar naa sëñ Fallou Galasse la ñoom ak i bokkam njabootam gi daañ ko dañ ci soor nee na war nañ ci def liggéey bu baax a baax a baax nee na sëñ Amadou Ndiaye it dégg nañ waxtaan wi nee na am na solo lool nee na mel ne daal képp koo xam ne teewoon nga fi da nga am yóbbal boo mën a yóbbaale nee na te lool ndong nag mooy njariñ bis yi nee na kon ñi ngi sant ñu fi doon jàng alxuraan ak jàngkati xasaayid yi ak mbooleem ñi doon taxaw liggéey bi nee na ak ñun ñi fi nekk te di ko yaatal di saare xibaar yi sëriñ bi nee na mi ngi nuy sant bu baax amiin nee na yàlla na yàlla barkal sunu liggéey ci barkeb sëriñ Touba amiin sëriñ bi ne jërë ngeen jëf wasalaamualeykum wa rahmatullah